leen ci seen bëgg-bëgg digital store indil na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Score X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoo jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP 68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gii leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store, améliorez votre quotidien. dafa dem ca marché ba gis lu ñuy maxbuun mooy ku yàlla jox ak wér jox la jox la ak jox la li ñu tuddee maanaam ak jot nga sànq jot ga sànq wér ga te ñu néew la ko suñu borom di jox mbokk yi yonent bi aleyhi salaam nee na laa tazuulu qadama abdin yowma alqiyaama xatta yusala an umri fi ma ah wa an ilmihi ma saamila bi wa an maali min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa wa an jismi fi ma abla yonent bi nee na ëllëg yowma alqiyaama jaam bi du ab du buuse benn mètre luut yàlla subhaanahu wa taala da koo laaj laaj yi ni ko yow sa dund gi ana ci loo ko jeexal sa xam-xam bi loo si jëf sa alal ji foo ko sàkkoo ak foo ko loo ko ndale mbokk yi sa yaram wi ci loo ko ràppal mbokk laaj yi day jooy na lu yéen a bàyyi xel lool te yonent bi alayhi salaatu wasalaam Mustafa mi yàlla yónni woon si ñun nee na jaam bi du séqi benn jéego ëllëg yowmil xiyaam lu yàlla da ko laaj-laaj yi mbokk yi waxtu mooy ndab li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala ci la def jaamu yi muy julli di woor ñett asaka di aj màkka ak jaamu yu bëree bare bari yoo xam ne suñu borom da koo def ci waxtu ngir wane rek importance boo xam ne waxtu am na ko mu am si jaamu yoo xam ne mënoo ko def lu dul ci waxtu wa soo ko defee ci lu waxtoom rek du wér kon mbokk yi waxtu lu am solo la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas ko laaj ni ko ana lan moo gën ci jëf yi mu ni assalaatu fi waxtiha aw li waxtiha mu ni julli ci waxtoom mooy li gën ci jëf yi loolu la muy tekkale mooy waxtu solo su waxtu am sayyiduna ali radiallahu anhu danañu nettali mu ni yonente bi alayhi salatu wasalaam ida awa ila batihi jazza nafsahu salasata ajza jus an lillah wa jus an li ahlihi wa jus an li nafsi ne bi alayhi salatu wasalaam bu masaan dugg kër day xaaj ji ñetti xaaj benn xaaj bi mu jox ko suñu borom subhanahu wa taala benn xaaj bi mu jox ko waa këram xaaj bi mu moomal boppam nag mu xaaj ko ñaari xaaj benn bi mu jox ko boppam bis mu jox ko ñi nga xam ne ak njabootam kaana sallallahu alayhi wa sallam asad naasi moo gënoon a xër ñëpp kuy xër ci waxtu benn waxtu daawut jàll lu desee jaamu suñu borom subhanahu wala mu def sa loo xam ne day yëwanal ay doomu aadama mbokk yi yonte bi am nee na juróomi mbir a ngi nii da ngeen ci góorgóorlu bala mu leen a faat jamono bi nga nekkee ndaw shababaka qabla haramik jamono bi nga nekkee ndaw bala ngay màgget na nga góor-góorlu sa ndaw jox ko suñu borom subhanahu wa ba boo màggetee mu yor la sa bopp waaye sa wér gi yaram jamono bi la suñu borom mayee wér jox sa bopp suñu borom subhanahu wa taala la njëkk ngay wéradi waaye mbokk yi jamono bi nga amee nga dundale sa alal ci yoonu yàlla la njëkk ñàkk di ñëw waaye mbokk yi jamono bi nga amee jot nga jël jot googee jox ko suñu borom subhanahu wa taala la njëkk jotati di ñëw kon yonent bi nee na lii poñ mbir la moo xam ne ku si nekk war na see góorlu def ko muy fursa boo xam ne du du du du koy da koy màng ngir jox ko suñu borom subhanahu wa ba doo ko réccu mbokk Qayyim rahimahullah wax na wax ju am solo ci waxtu nee na doomu day nit ki waxtu mooy ak dundam mooy li tax mu mën a am xéewal ëllëg yawmal qiyaam sax si ba dakk sax fa ba faw waaye mooy li nga xamante ni mooy tax ëllëg mu sax ci ci sawara ba faw sax ci texe di ba faw te loolu li koy waral mooy nga jël sa sa sa sa sa sa sa dund sa waxtu jox ko suñu borom subhanahu wa taala ne soo ko defee ëllëg da nga dund ci xéewal ba faw waaye ñi nga xam ne dañoo jël seen waxtu di ci fo mel ni ay bàyyi ma ne ñooñu de ñu dee léegi moo gën ci ñoom dund ndax sëñ Mansuur Si radiyallaahu taala anhu dafa daan wax ni fan wu gudd paaka ñaari boor la te rot na ci xadiis yonte bi aleyhi salaam wax ni nit ki su demee ba am juróom benn fukki at suñu borom da koy dogal ngant da koy dogal ngant mooy amatul laaj ci suñu borom ndax yàlla mayoon na ko fan wu gudd amatul laaj ci suñu borom. moo tax si ma su daan wax ni fan wu gudd paaka ñaari boor la man nga caa baaxle mën nga caa jaamu yàlla waaye mën nga caa yàqule mën nga kaa foyee. moo tax nu Qayyim waxoon wax ju am solo jooju muy sa dund gi sa waxtu wi ci nga mën a amee ëllëg àjjana ba faaw waaye ci nga mën a texee de ëllëg ba faaw. mbokk yi nit ñi nga xamante ni da ngay ku foowee sa waxtu ñaari taxawaay ya ngi nii yoo xam bis boo ci àggee danga nga rëccu loo doon foowee sa waxtu taxawaay bu njëkk ba mooy bis booy sukuraat xiina yuwaddiu dunia wa yastaqbilu axira sooy tàggu àdduna di jublu axira jamono joojee day suñu borom dina ubbi say bët lépp li nga xamante ni moo nekkoon sa kanam daawoo ko mën a gis ngir dund gi nga nekkoon suñu borom dala koy wuññil ngay jàkkaarloo xaqaayiq yi réalité yi di gis lépp di gis say jëf gis fa nga jëm gis sa kër gis lépp boobu da nga rëcc loo doon sànke sa waxtu suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci alxuraan ni yaa ayuha alladina amanu laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dikrillah wa man yafal dalika fa ulaika humul xaasiruun wa anfiqu mimma razaqnaakum min qabli an yaati ahadakum mawt fa yaqul rabbi lawla aqartani ila ajal qarib fa asaddaqa wa akun min asalihin yàlla nee na yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla seen alal yi ak doom yi bu ñu leen fàbbi ba du ngeen jaamu seen borom subhanahu wa taala leen jariñ su boobaa lu leen yàlla subhanahu wa taala di tontu walan yu aqir allahu nafsan isaa jaa ajaluha wallahu xabirun bi ma taxmalu yàlla nee na bu ñu waxee loolu yàlla ni ko yàlla dimbali ñu delluwaat ñu àdduna ngir jaam leen jariñ suñu borom subhanahu wa taala dafa leen di wax ni dellu àdduna moom amatut dee bu xasee jub dee rek su boobaa rëccu loo doon sànke sa waxtu mbokk yi cheikhul xadim radiallahu taala anhu mi ngi wax nee na wa arqabul ashyaai lil amwaat radun ila dunya ma alxayaat walaw suwayatan faqad li yamalu salihatan tanfaahum in xafalu tey boo demoon ci armée li nga ñu pëkk pëkk pëkk ñay nelaw ñu leen jóg leen lu ngeen gën a duñu leen yàlla dugal ñu àjjana waaye dinaan yàlla dimbalu ñu rek may ñu benn fraction seconde bu ndaw ci àdduna rek ñu jëf ci ju baax joo xam ne dana jëriñ ëllëg bu ñu demee yemal xiyaam kon mbokk yi loolu ab yee la ci képp koo xamante ni yaa ngi dund nga góor góorlu sa dund jox ko suñu borom subhaanahu wa ba ëllëg doo réccu mbokk ba ne taxawaay ba mooy ban mooy alaaxira ba suñu borom subhaanahu wa dugal ñu war a dugg àjjana mu dugg leen àjjana yàlla ñu si yàlla boole ñu war a dugg safaan ba suñu borom dugg leen safaan ba yàlla ñu si yàlla musal foofu day arqaan ñuy wax yéefar yi nga xam suñu borom dafa leen dugal sawar na yaan yàlla teg ñoo dimbali génn nañu fii ñu dellu àdduna ngir ñu mën a jëf jëf ju baax ba bokk ci nit ñu baax ñi wala si na kafaru lahum naaru jahannam laa yuqdaa alayhim fa yamuutu wala yuxafaf anhum min adaabiha kadalika najzil kulla kafuur wahum yasriquuna fiiha rabbana axrijna naamal saalihan xayra alladi kunna naamal aw lam nuammirkum man maa yatadakkaru fiihi man tadakkar wa jaakum nadir fa suuqu fa ma li zalimina min nadir yàlla nee na buñ nekkee ci sawar dañuy yuuxu na yàlla te ñoo génn fii dimbalu ñu oyofalal ñu mbugal mi ngir ñu mën a jëf-jëf ju baax yàll leen déedéet fii moom tey du bisub jëf bésub moom amul jëf amul jëza la du yomul amal bisub jëf la du fay du bisub fay la du bisub jëf daan leen ñam li wara suñu borom nee na wàcceeloon naa leen ñu leen di yedd di leen waar ngeen gëm te kuy tooñ moom kenn du ko dimbali kon foofa rëcc du fa jariñ dara mbokk yi lay waral loola mooy sàggan te suñu borom subhanahu wa taala waxoon nañ ci alquran mooy tandiloo ñu sàggan yàlla nee na wa laqad zara'naa li jahannam kasiran min al jinni wal insi lahum qulubun laa yafqahuuna biha wa lahum ayunun laa yabsuruuna biha wa lahum aadanun laa yasmacuuna biha ulaika kal an'aami bal adall ulaika humul xaafiluun yàlla nee na sawara bindal naa ko ñu bëri ci ay doom aadama ak jinne yoo xam ne sawara laa sawara tax ma bind leen lu tax dama leen jox ay xol ñu war xalam suñu borom subhaanahu wa taala te duñ ko def ma jox leen ay bët ñu war di xool kiimtaani suñu borom subhaanahu wa taala di gëm yàlla te ko def ma jox leen ay nopp ñu war caa dégg waaraate ngir ñu jàjju dellu ci suñu borom subhaanahu wa taala te duñ ko def yàlla nee ñoo ñu day dañoo mel ni ay bàyyi ma wala bàyyi ma sax leen yàlla nee na ñooñu ñoo ñi réer yàlla nee na ñooñu ñoo ñi saggan kon subhaanahu wa taala mooy te loolu ko ñuy sàggan te sàggan mooy sànq sa waxtu yi loo xamante ni amul njëriñ mbokk yi bokk na ci sàggan li ñuy wax taswiif te mooy niig niiglu tey suba ëllëg rek nga war a def dara naan naa bàyyi suba naa bàyyi ba ginnaaw loolu te boroom xam-xam bu mag muy xasanul basri yu dul yàlla ku mag dafa wax ne tere naa leen niig niig te ndiku leen niig niiglu ndax doomu aadama day amul ayam waaye ëllëg moom xamoo danga ci àgg wala doo ci àgg kon lii la war tey rek def ko soo fekkee ëllëg muy taw fiix nga def ko nga def la nga ci war a def soo ko fekkee wutin fekk yow la nga war a defoon ko ci bis bi jàll ba pare ñu laaj benn borom xam-xam mag ni ko dénk ñu mu ne iyaakum wa kalimatu sawfa maa ngi leen di tere baatu sawfa mooy dinaa def dinaa def dinaa def ndax innaha jundun min junoodi iblis baatu dinaa def dinaa def dinaa def nee na benn soldaar ci soldaar yéef ci iblis seytaane kon na ngeen baatu saw fa dinaa def loo war rek fa nga ko war a defee defee ko fa ni loo war def rek jugal def ko bu ci xaar lenn mbokk yi waykat bi nee na tazawwad min ad-dunya aw min at-tuqa fa innaka la tadri ida janna laylu al taais ila al nee foo man di nekk ànd rek ragal yàlla ndax xamoo ni yow jamono bii nga toll nii ndax yaa ngi ci guddi ndax fajar dina la fekk wala déet mbokk yi ñaat nit ngeen nekkal di waxtaan ak ñoom bu ñu reer ba pare di waxtaan ak ñu xëy ni la faatu na mbokk yi ñaat nit nga jot téléphone di wax moom téléphone ba guddi mu coupé téléphone bi ab diir wala ne diw faatu na kam min salimin maata bi xayri illatin wa kam min mustaqimin aasha aynan min waykat bi ne ñaata nit ñoo koo xam ni dara dalu ko dara dalu ko ñu xëy xëy ni la faatu na ñaata nit ñi nga gis koo xam ne daa feebar bañ jàpp ne duy fanaan mu suñu borom may ko dund muy continuer ba tey wa kat fatan yumshi wa yusbihu aminan waxaat nujisat afkaanuhu wala yadri bëri waa na ndaw loo xam ma ngay cëpp-cëpp yi di daw subaak ngoon moom yëgul ni ña nga toog di ñëw ak di di ñëw lañ càngaayam ña ngi koy ñaw te ma ngay tëpp ma ngay cëpp cëpp di daw di fo te xamu ni càngaayam ña ngi koy ñëw wa kam min saakinin sabaaxi fi qasrihi wa inda al masay kaana min saakinin al qabri maanaam waa joo xam ma nga dëgg sa njëndéem ma nekk sa paleem tëdd fa te xamu ni fanaan xamu ni bàmmeel lay fanaan yi te ku ko waxoon weddi ko bari waa na waa joo xame ni ma nga tëdd sa néeg sa këram ko rafet sa njëndéem dëkk sa paleem te xamuñ doo fanaan ci bàmmeel lay fanaani yi mbokk yi waxtu lu am solo la dañ koy bàyyi xel di moytandiku néeg néeglu cheikh ibrahim radiyallahu wax na ni fal taqtaru taswifa qasirul amal is duna day ni lay laysa yumkinu al amal sëñ bi ne na ngeen di dagg néeg néeglu ak gàttal seeni ndax ñaar yooyu de kum nekk si moom néewaana ngay jëf kon ñuy moytandiku saw fa tey suba ëllëg ngoon li la war def ko ci jamono bi mu la waree mbokk yi abdullahi ibnu rawaha alqaidu thalith fi maxrakati almuta baadama qutila zayd wa jaafar